Euh, des na tuuti hmm. ku fi jur doom mu dem ban la papa dama bëgg nekk takk der da nga koy aaye da nga naan noo doo nekk takk der hmm. parce que ñu dem ba du takk der du koor yëpp mais dafa am yoo xamante ni fii Sénégal ñu ngi commencé di ñàkk valeur te kenn tegu leen ko lu dul président Macky Sall parce que ay ordre la ñuy suivre yoo xamante ni dafay jóge ci kaw ci seen i njaatige te njaatige bi kan moo chef suprême de l'armée kan la président de la donc dañu commencé wax nañ ko fi ya deux semaines man ak yow ci lan la woon mooy policier boobu ñu fi jëloon borom oto bi yóbbu ya ko ba puus. wax ah. nañ ko fi. ba ñu ni même même bu dee xaritoo ak policier boobu la sax takk der police ak gendarmerie li ñu gisagum ci policier ya ak gendarmerie. c'est-à-dire mhm. ñi ngi leen di tàmbali ñu baal ma ci kàddu gi may wa nar a wax ñi ngi leen ni commencé di ñàkkal fayda non ñi ngi leen ni def looloo xamante ni non waruñu ko def quoi. Mhm. parce que nit koo xam mi ngi mel ni tey Macky Sall APR doon def tournée. ñu sànni ko lacrymogène wala ñu sànni ko xeer ñu sànni ko xeer wala suuf boobaa dañuy toog fii dañ koy dénoncer. Mhm. donc kii ñëw na te li mu wax leer na dañuy sukkandiku ci li muy wax du ñu créer parce que dañ ne ko euh, gendarme bi yaa ngi dégg muy waxtaan moom mu naan kan tour à l'ordre public mu ne ko mais naka Ousmane Sonko ko wax dafa leer dafa ko <laughs> dem naa ci xalif général Mouride. Mhm. génn nit ñi di wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko. Hmm? Mhm. ni ko bi ma fii bi ma ñëwee dama dem cité dama dem ci bërëb sàngam dama dem ci bërëb sàngam wow ma kenn ni ko génnal lan la ci man ni ko may Ousmane Sall ni Ousmane Sonko ni mu mel Ousmane Sonko ni mu mel lu mu wax dafa ni Yalla moko def. Mhm. Kan donc encore une fois buñu bolé lu bokul quoi vraiment nañ bayyi doomu jambour ji mu def ko touram parce que annoncé nako ni dafa samp ndëndam pour candidat. Mhm. dina bokkam du bokk man loolu eggaguñ ci mais au moins muy Ousmane Sonko di Macky Sall way di Aminata Touré di Khalifa Ababacar Sall di Malik Gakou ak ñeneen ño xam ne mënu ma leen

léegi ah, Ousmane Sonko wala boog opposition bi amatuñu droit def seen tournée. Hmm. parce que dama koy génne ci cadre Ousmane Sonko parce que li daal Ousmane Sonko mën na dal beneen opposant hmm. donc léegi opposition bi amatuñu droit jël seen oto dem. nit ñi nit léegi sénégalais amatuñu droit génn wax tàccu. tamit ah non non non c'est une question que c'est des questions que qu'on se pose dama ne sénégalais yi amatuñu droit génn di di seetaan amatuñu droit génn seetaan amatuñu droit génn yuuxu amatuñu droit génn tàccu nag léegi. boo génnee di saa di yuuxu wala tàccu dañ lay dañ lay sànni lacrymogène mais ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk nag ah waaw mais nañ waxante dëgg nañ fekk nañ waxante dëgg aussi Mame Matar Gueye encore maa ngi lay interpellé man li ma lay interpellé dafa bari ah li am démb dox ci hmm? waxal ki santaane ñuy sànni nit ñi lacrymogène que nii waruñu leen sànni lacrymogène parce que ñoom dañ annoncé ni dañuy def seen seen nemiku tour dañuy dem nit ñi kenn moomu leen kenn moomul kenn président Macky Sall même buy romb yow àndoog moom da ngay génn. Mm. misaal bu ndaw a ngi noonu. Mm. président mi ngi génn ñëppay fëx. Sénégal ci boppam moo mel noonu du ay Ousmane Sonko moo woote wala Y moo woote wala Z moo woote non jàll na kan la nit la nit bu am influence fii ci réew mi nit bu am nit nit maanaam nit nit bu bu bu ute na man. Mm. voilà pour ça être simple ute ak man ute na ak ñu bari xanaa Franklin mii sax nekk Vibe am na bërëb yoo xam ne bu fa romb ñu ni Franklin yi nit ñi nit ñi mbumbaay ko non waxantuuma Franklin mii am na koñ yoo xam ne bu fa jàlloon ñu leen Franklin bu siis na a ngi nii gën gaane fukki nit dinañ ni eh waaw dinañ ko xool donc ñun jàmm rek la ñuy wër Sénégal jàmm la paix hmm? jàmm la paix la bëgg te nañu bàyyi vraiment ni ñuy utiliser encore une fois dama ci ñëwaat suñu takk der yi ni ñu leen di utiliser ci li ñu nemmeeku ci période président Macky Sall ah C'est dara dara dara dara dara Sénégal franchement liñ fi liñuy gis gis yenn ci tak der du souvent gendarmerie ak police ñoo ci a ñoo ci gën fess liñ leen di euh, nangu nañ nangu wuñ ko daf parce que ay ordre lañ on exécute les ordres mais neexul dañ dem ba ah, la dem euh, euh, police non non non c'est pas le même. bon xam naa maa ngi rey gars yi je suis passé je suis très sérieux nañ ko nangul saagam modèle am la moo dem commandé ko nañ ko nangul gonam c'est ça gon la non. Mhm. eh donc voilà xam nga ñun suñu assemblée moom. député bu nekk nga fa am député yi am député yu yéeg ci kaw table bi. Mhm. am député yu jël kees di yóbbu. Mhm. gendarmerie dañuy dañuy dugg biir député. ah donc moom bu ñëwee ak saagam. Hmm? mën nañ ko nangu gis nañ fa député bu doon doxantu. Hmm. <laughs> gis nañ fa député bu mag yow ñu ñu sànni ko ay ay ay kii bon c' est l' assemblée nationale. lu dëgg problème mooy euh, idée yi lañ soxla. saag beeg intéressé wuñu xam na mu ñu intéressé. Hmm. saagam nañ ko ko bàyyeel prophète euh, kii wam nu mu tudd poset noonu ngeen koy waxee ah. poset bi nañ ko bàyyi posetu gonam bi nga xamante nee na dafa def des kilomètres dem ba Los Angeles pour. pour defarlu ogon pour pour pour defar lan ogon. ogon waaw yàlla e ogon. waaw man ogon donc man ogon yi xaaruma ci dara xam lu may xaar man daal li may xaar mooy nañ fay teg vraiment loo xamante ni Sénégal yi dinañ ci gis seen njëriñ. su dëgg ku yëg kitaaba la ku génn ogon yooyu yëpp dama la koy nangul li ma lu dul nangul koy mooy. ñëw ba nga war a tegal Sénégalais yi loo xamante ni arrangé wul Sénégalais lu mën a am loo mën a sol loo fa mën a yóbbu. ko meuna don, no meuna mel han mel ah mhm. ak no meuna tollu toll fexeel ba bo toge ci penc ma ga togal fa askan bi pour au moins une fois au Sénégal ñun biñu judo xam xamé ragné ba légui ñu am au moins une assemblée de rupture lo rek lañ bëgg ci 14e législature Koura maké ak Guy Marius Sagna ak ak mhm. euh, ak ñomine sen mhm. Aminata Touré Mimi liñu bëgg rek moy une assemblée Pape Djibril Fall Thierno Alsan Sall nous voulons une assemblée de rupture sol leen lu leen neex mhm. defar leen saak bu mais dans di leen proposer loi yoo xamante sénégalais vraiment dinañ ci gis seen bopp te muy jàll te it ñu bàyyi majorité mécanique